رمنا سكور الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون رمنا سكور الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi allazi walaxa li cibaadihi manhaja tarbiyati fi sarxihi alxanif wassalaatu wassalaamu ala man addabahu rabbuhu fa axsana ta'diba sayidina muhammadin allazi xaal innama buxistu muxalliman aw innama buxistu li utammima makaarimal axlaaq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi am mbégte tey gu lalu ci ak cant ci bi ñu amee tawféexuk mën leen jottali xew-xew bu mag bu amee woon ci ndakaaru ci kilifteef ak ndigal ak ci njiital xalif général kullu murit ak cheikh Mouhamadul Amine Bara Mbacké lan moo xewoon kañ la xewoon ci lu mu tàbbi bisub àllarba benn panub safar ci atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ci ginnaaw gàddaay gi muy premier safar 1430 de l'hégire loolu dëppoo ba tey ak le 28 janvier 2009 ci la sëriñ Fallou Mbacke ibnu sëriñ Souhaïbou Mbacke jàpp nag ngir ubbi daara ju mag daara ju mag joo xam ne jàmm yàlla rekk mooy li ko tax a jóg te mu feddaliku ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ak liggéeyal sëriñ tubaa xaadimu rasuul liggéey ubbiteeg daara ji nga xam ne mi ngi amee woon ci kilifteef Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy xalif Serigne bu Mbacke ak ci ndigal Serigne Mouhamadul Amine Baara Mbacke dafay tàbbi rek ci ndono loo xam ne mi ngi tukkee ci Serigne bu Mbacke mi nga xam ne ku ko xam xam nga ko ci jàng jàngale yar ak liggéey te lépp nag di njàngalem Serigne tubaa Xaadim Rasuul daa am bis am ñu ma laaj loo sëñ saaliwu ne ma war ngaa laaj sëñ saaliwu boo xam daal liggéeyal sëñ Tuubaa bu am solo boo xam ne dees na ci man a sax mu tegtal ñu ko ma dem laaj ko ko ne ko am na mbokk yoo xam ne dañoo wax ne dañoo bëgg a leen liggéeyu sëñ boo xam ne mu ne mu ne ah xawma ci lu ci lu ci jiitu yar ak jàngale de ndax kuñ ko mas jox ku ne bu ñëwee bu àndeek waajuram sëñ bi dana laaj maa yar nañ ko te jàngal te jàngal ko bu fekkee xaw naa doon mag bu fekkee doon na gone dana wax ne nañ ko yar jàngal ko الصبر يحييني lu ëpp fukki at ci ginnaaw fekkoon na sëriñ Fàllu Mbàkke sooy bu jëmale ay xalaat ak i gëstu ngir rekk lépp lu aju ci liggéey bi muy liggéeyu daara ji mën a tegu ci yoon woo xam ne dana dëppoo lool ak li ñu taamu ci daara naka jekk loolu mooy njàng mu wér te jub te seetlu lool ànd kook yoon woo xam ne dana yéwénal nekkin dongo daara yi ci fànn yépp ana nag li tax a jóg daara ji sëriñ Fàllu Mbàkke ibnu sëriñ Sohaybu Mbàkke ubbi na ci ay buntu waxtaan yu yaatu yoo xam ne dees na ci teewlu rekk ay xaaj ñu déglu sëriñ bi xam-xam dafay loo xam ne lii moo teqale nit ak bàyyi ma te alxuraan bi muy wàcc li muy rëy rëy rëy lim njëkk a njëkk a njëkk a wax moo di iqra dafa mel ne kon lam njëkk a indi rekk boo ko settantalee moo ëmb la ca des lépp kon iqra la ko wax ginnaaw iqra nag la ko wax kon loolu tegtale ne jàng xam-xam munta ñàkk kon nag mu mel ne Tuubaa ci gàttal sëñ Touba def na fa lu baax lu baaxit am na fa gis fa gone gu am fukki at man alxuraan gis fa ku am fukki at ak juróom man alxuraan waaye man xam diineem mën a taxaw fii naafileel la tadu gag ba alxuraan jëpp àgg lu yomb la lu fa yomb la gis koo jox këyit ak daa mu bindal lépp kaamil bu rafet bu sell mel na war a mel te géestuwu ko bari na fa waaye nag lu baax loolu fa am sëñ bee fa sàkku ñaan ko boromam ba yaaral la defal ko ko waaye nag dafa jaadu it loolu ñu yaatal ko ba nga xam ne Euh, dana daj fépp loolu li muy njariñ bi muy am mooy day tax koo xam ne kii mën a yóbbu sa doom fële euh, faatoon na la mënoo ci woon a joti boo gisee fii daara yi it mën na fab sa doom yóbbu ko ci te booba boobaa alxuraan ci bénéfice u jullit yi rekk ci bénéfice wu loolu mooy li tax ma xalaat ne euh, bokk na ci liggéeyal sëriñ bi ñu fexe ba lu baax la ne Tuuba ñu tasaare ko ba mu nekk fépp te looloo njàngum alxuraan moo ci jiitu. sëriñ bi leeral jublu gi ak fii mu agsi tey jii mënees na ko tënk ci yii baat yéena ju rëy pas-pas bu kawe pëstéef bu mat sëkk ak ku dogu ak ndimbalal yàlla barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa ak taxaw sëriñ tubaa xaadimu rasuul kon nag alhamdulillahi rabbil alamin rek mooy li ci war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 kenn ku nekk ci saw tur ak ci saw sant nee mi ngi jiital ci nuyoo bi sëriñ Cheikh aw Balla mii ak sëriñ Saalihu mii di doomam ñu dëgg fi ci turu xalif général de Mouride Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké nee na moom Serigne Cheikh nuyoo bi ak cant ji ak cant gi ak wax gi lépp ci Serigne Cheikh Awa mii la koy commencé. tekki nag ñu ak sëñ Abdou mooy sama rakk ak sëñ Fallou ñoom ñi nga mii nga xamante ni mooy rakkam ak sëriñ Fadilou mii nga xamante ni ñoom ay ñoom ñooy ay rakki boppam. Mm. ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo fi daje. ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo fi daje. jiital ci seex si. jiital ci seex si. ak taalib yi nga xam ne ñooy suñuy laqarab. ak taalib yi nga xam ne kër gi. kon ginnaaw bi leen nuyoo sëriñ bi nee na bi mu leen nuyoo ba noppi. te di leen sant. te di leen sant. Eh, tey gërëm sëriñ Fallou Mbacke mi. gërëm Cheikh Mamadou Fadel Mbacke mi toog. nga xam ne eh, lii mu lii mu sumb. te bàyyam tedd wa nekkoon ci. nekk ci lu mat eh, ñeent fukki at ak nangam. nekk ci lu mat ñeent fukki at ak nangam. musu koo wàcc musu koo génn. nga xam ne musu koo wàcc benn yoon wala mu génn ko. ci alxuraan. ci alxuraan. nga xam ne bàyyam da koo rafaatale ni Serigne Touba daf koo rafaatale woon Serigne Souhaïbou. muy muy jàng ak jàngale. ak jàngale. ak dem ci jàkka ja. ak dem loolu ko bàyyam rafaatale woon. yi la ko waajuram wa rafaatale woon. ne ko boo ca nekkee. ne ko boo ca nekkee. ak ku ci dimbali. ak ku ci dimbali. maa la gàddul seen lépp tey ëllëg. moo leen gàddul seen lépp tey ëllëg. kon nag uh, rawatina nag moom mi nga xam ne sëriñ bi def koo meññi. Uh, yar ko ci loolu. yar ko ci loolu. jàngal ko jàngal ko lépp. ba mu xam xam lépp. mu mu saytu loolee. dimbali ma ci ko ci moom mii di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké. ndax man bi ndax moom bii mu fi dikkee. ci loolu la fekk. ci loolee la leen fekk. fekk waaye nag li ma ci seen bàyyi bàyyil. li leen ci seen waajur bàyyil. dama ko jàpp sama fukki loxo. da koo jàpp ak fukki loxoom. bañ bañ mu rëcc bañ mu rëcc ko. waaye nag moom mii jàppale na ci. waaye nag moom mii di Cheikh Mamadou jàppale na ko ci loolee. ndax bu ko yemaloon fii ci Touba rek. ndax bu ko yemaloon kon ah, dana dana feeñ waaye du du tasaaroo. kon dana feeñ du tasaaroo. kon nag bu demee fee bu demee ba Ndakaaru. te Dakar di euh, capitale Sénégal. te Dakar di capitale Sénégal. mu woote ko fa. woote ko fa. ñëpp wuy ko. ñëpp wuy ko. kon moom lu dul ànd moom ci loolu. kon nee na moom mii di Serigne Cheikh mën lu dul ànd ak Serigne Fallou ci loolu lay muy def. ci mbégte. ci mbégte. ak cawarte. ak cawarte. ak jàppale ko ci. ak jàppale ko ci. ndax ba mu ko daataa sos. ndax ba mu ko daataa sos. dikk na tàggu na tàggu si ko. laaj ma ndigal. laaj ko ndigal. wax ma lim ci bëgg ko lim ci bëgg lépp. mu ne ko loolu fekkoon na mu bëggoon ko mu ne ko loolu yi fekkoon na mu bëggoon ko ko digal. kon nag am nga ci ndigal. na nga ca nekk. ko la ci la ci. ca fekk fekk la ci. ku la ci fekk sa fekkut it sa waajur dana la ca fekk Serigne Souhaïbou ak sa maam Serigne Touba. loolu nag dem na ba àgg ci fii mu toll. loolu nag dem na ba àgg fii liggéey bi toll. ñu war ko ubbi. ñu war ko ubbi. Ah, warata xeeru jàkka ja. xeeru jàkka ja. ndax oh, ab jàngukaay fu mu nekk. ndax ab jàngukaay fu mu nekk. Eh, jàkka war faa nekk. jàkka war faa nekk. kon bu kon nag su boolee loolu lépp. loolu kon euh, euh, na nga xam ne am na ci ngërëmul nee na Serigne Fallou na xam ne loolu am nga ci sa ngërëmul waajur Serigne Souhaïbou. waaw dina ko fa euh, ne bu dee da koy seet waaye Serigne Cheikh nee na cant cant léeg ngërëm li lépp day jëlaat lépp jooyalaat ko ci kii fi nekk tey jotaayam Serigne Touba muy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. fab lépp teg ci loxoom. nee mooy ñëw jiite nee na mooy ñëw ubbi ko. def ci barke. def ci ñaan ci barke. ba lépp lañ ci bëgg lépp. ba lépp ci bëgg lépp. Serigne Touba def ko. kon nag noo yëpp. kon nag nee mi ngi woo mboolem taalibe yëpp. ñi nekk Touba. ñi nekk Touba. ak fu waay mën a nekk rek. ci réew mi. woo nañ nañ la ci. a sëriñ bi nee moom dana teel a dem. ndax may may teetu ci ndax moom mais moo war a jiitu ngir mën a dalal sëñ Mouhamadou Lamine Bara. waaw ak kilifa yi fa ci aju yëpp. wax nañ ndigal euh, euh, euh, Cheikh bi. nee na li ci des jox na ndigal Cheikh Mansour Diouf. lépp lu ngir lépp loo xamante ni aju na ci organisation ba. ak taxawaay ba ak mu ànd kook sëriñ Baara Mbacke sama rakk. mu ànd koog Baara Mbacke rakkam. ñu taxaw liggéey ba yëpp. ba lu ci dib coono ci dib ñu yanoo ñu ñu ñu ñu toggoo ko. waaw lu ciy njëriñ. la ciy njëriñ. taalibe yëpp bokk yëpp bokk ko. jërë ngeen jëf يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من هداك سندا أزكى صلاة بسلام لتجود بالاستقامة وتقليل الهجود daara ji nag muy daaray Serigne Souhaïbou Mbacké léppam dafa tënku ci lislaam looloo waral ginnaaw bu ñu jiitalee njàngum alxuraan ak xasaayit ak bépp fànni xam-xamu diine danañu fi dundal bisi cant yépp niki laylatul xadr gàmmo màggal sëriñ Suhaybu Mbàkke màggalub Tuuba te di ko gàttandoo nag benn panub safar nga xam ne bisub xasaayit lañu ko def jagleele ko ko ak mbooleem bis boo xam ne rekk am na taxawaayu cant ci lislaam daara nag ginnaaw nga xam ne ñépp la ci seen njariñ nekk looloo waral daara ji ñu ubbil ko góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi kenn ku ne daal la ci sa yitti rek ak sa tolluwaay waajalees na ko ba nga xam ne njariñ rek moom nga fiy fekk ci njàngum alxuraan njàngum xasaayit njàngum xam-xam yeete ci diine ci fànn yépp rek ñu ngi am mbegte bu baax mu rëy ak bànneex ci lii ndax biñ koy door ci suñ kanam la woon bu àggee ci suñ kanam nu fekk ubbite gi dañ ci sant yàlla bu baax a baax di xam ne ni sëñ Fallou nag lii mu door da ko donn muy jàng ak jàngale doon ne ci sëñ Souhaïbou sëñ Souhaïbou doon ne ko ci wajum Cheikh Ahmad Bamba te moo fondé yoon wi itam bi mu jàngee li mu war a jàng ba xam ko sëñ sari bu dafa ñëw kër sëñ bu gis ko muy jàngale am njàngaleem neex ko mu laaj ko sëñ Suwaybu bu sëñ Suwaybu bu ne maa ko jur mais sëñ Abdou moom laa ko jébbal mooy kilifaam sëñ Saliou jël tànkam ci bis bi dem laaj ko sëñ Abdou mu jox ko ci bis bi mu jël ko yóbbu mu koy jàngaleel xam-xam ak jàngaleel alxuraan ca daara ja doonub tali bu gëm sëñ Tuubaa it nag man xam naa ci lu lu baree baree bari ndax eh, dañoo bokk muy sama xarit ma xam ko nag bu wér a wér

ci la sëriñ Fallou Mbacke tàmbali liggéey bi ànd kook taalibe yi ci ndigalal sëriñ Saalif Mbacke liggéey boobu nag di dox tàmbale ko ci ba fa dara amul woon ñu ko ci yeesal barab bi ci terrasse terrain ba sellal ko fondement ko daal di tàmbali nag tabax yëkkati nag mu jëm kaw gan gu toll ni xalis général kullu murit ku ne xam na ne mooy ngën gi gan ngir taxawul liggéey boobu ci waajtaay wi sëriñ Fallou Mbacke Coy bu ànd naag njaboot gi ak préfet Sakho mi nga xam ne mooy préfet Ndakaaru ak itam Euh, service yi nga xam ne yëpp seen liggéey aju na ci ngir waxtaanee fànn liggéey bi ak fànni waajtaay yi ak matuwaay yi nga xam ne moom la dëppool waa police sapeur pompier gendarmerie service d'hygiène ak itam ci teewaayu waa kër Serigne Modou Kara kenn ku ne li ci sawal daal xame nga ko ci te wane nga ne des na ci taxaw ba mu mat sëkk te loolu lañu jëf liggéey bu rëy boobu nag mi ngi amee woon ci taxawaayu Serigne Bara Mbacké Souhaïbou mi nga xam ne moom la sëriñ bi dénkoon liggéey bi ci ak taxawu te mu nekkoon ci jëwrin waaye itam. ci taxawaayu Cheikh Mansour Diouf mi nga xam ne sëriñ fàllu Mbacke son bu bëral na ak cantam ci yitteem ak pas-pasam ak euh, pëstéef bi nga xam ne moom la ci def ànd ak mbooloom te lépp rek ñu jublu ci liggéeyal ci sëriñ Touba jaare ko ci sëriñ fàllu Mbacke son bi mi nga xam ne moo taxawal daara ji ñuy ubbi tey dëppale bii ñu dëppale kàddu yi tax na bis bi rafet lool ci waajtaay wi muy kaaraange gi ak bu rafet bi ak itam yar bu mat sëkk bi nga xam ne moom la ñu fa ràññee. Sëñ Fallou lépp loo xam ne mi ngi koy waaj wala di ko def wala mu bëgg ko man képp ku yàlla sàkk ci àddina maa la ci war a gën a sonn ndax jàpp naa ne li mu def ci man ah du ma ne defu ko ci kenn waaye. xam naa ne daal bokk naa ci ñi mu waaw waaw loolu daal wax ji moom ba tey guddal waaw dimbali na ma daal lii lépp gis nga ko ñu ngi nii yoof gépp taxaw nañ di xaar ay ganam ubbi nañ seeni kër xéwal yii yëpp gaaye ko fi indi nag yaa ngi nii xar yaa ngi nii ginaar yaa ngi kër yaa ngi nii bâche baa ngi nii taalibe yaa ngi nii di ko sant nag bu baax a baax a baax ndax xam naa ne lii mu ñu defal ak yokkute dong dong dong lay ut ci ñun man li ma ci bëgg rek mooy nit ñi xam ne xëy na lii lañ gis moom waaye nii lay dunde toujours xëy na tey la am occasion pour béral ko mais sëñ bi dundam bis bu jot lii la waaw mooy dajale nit ñi yaatal nit ñi te bëgg sëñ tubaa dimbali leen àddina ak ndax moom dimbali nañ ko pare ba ko ba mu sëñ tubaa boolee ci deretam la ko dimbali moom mais bëgg nag sëñ bi dimbali nit ñi àddina ak di ko ñaanal nag moom mu yàgg fii lool lool lool lool lool te wér man li ma ko bëggal sëñ tubaa rek laa koy bàyyee parce que mënuma ko daara ji ñuy ubbi nag tey ñu ngi ko tuddee daara yi Cheikh Souhaïbou Mbacké njëkk ñuy ubbi buntub gëstu ci tëralinu njàng mi nañu sàkkoo xam nag kan mooy sëriñ Souhaïbou Mbacké ibnu xaadimu rasuul sëriñ Touba li ko taxoon a ñëw ci àdduna mooy xetteel doomu aadama yi xetteel nag boo koy def nit foog nga jàngal ko yar ko xamal ko diine xamal ko lislaam loolu moo tax sëriñ Souhaïbou bi mu ñëwee loolu rek moo doon métier loolu la yar na ci ñu baree baree bari mbooloo mu bari moo gën daaraam te ku gën daaram ku ne boo gisee danga xam ne kii daari seen soñ bu la jaar ci la génne ci yaram ak xam-xamam maandoom loolu seen soñ moo ko def ci ñoom. bu xamoon àddina la daawul génn te lépp luy dox ci biir àddina xamoon na ko kooku daal daan nañ ci waxtaan lu bari ci marche diplomatique militaire économique du monde loolu moom xamoon naa ko ci service dundam li ma yéem moo doon euh, ni mu fonke woon d'abord julli juróom fonk ko di ko dem di ko di dem ca jàkka ja daawul rate benn yoon julli juróom loolu moom lu ma gënoon yéem la ci doxalinam li ma gënoon dolli ci beneen xalaat bi benn fànn mooy ni mu xame woon wàllu docteur loolu aussi facette bu rëy la boo xam ne kuy fàttaliku sëñ Souhaibou di ko fàttaliku buñ daan ñëw ànd ak médecin militaire yi di ñëw danaan waxtaan ak ñun ba jàngal ñu loo xam ne ñu foogoon nañ ne ab sëriñ waru koo xam. sëriñ bu Mbacké mii ñu tuddee daara ji sëñ bi soññal ko ci boppam soññ goo xam ne moom dégg na ko te jàpp ko ndax yoon yi ko sëriñ bi daa woolu yépp ci nim ñu ko daa nettalee. di ñuy dégg de nee na xamee na ci ne fu mu demee rek sëñ bi dana ko soññ ci alxuraan ji sëñ Saaliw it daana wax ne ma sëñ soññ bu dee njàng am njàngam it su njàng yëpp itteeloon sëñ bi waaye am njàngam itteeloon na ko bi si sifatin xaas dafa wanoon gannaaw lépp eh, jëm ci alxuraan rek ak ak diine bàyyi cëram yëpp bàyyi wàllam yëpp bàyyi lépp luy lu lu tegtale nit ki eh, mu ngi jóg ci boppam ci ngir àdduna loolu suñ suñ tubaab suñu laaj ba ko génn ci boppam eh, eh, seereel ko kilifaam yi fi nekkaloon bokk ak ñoom Serigne Touba dañ ko da ca dafa nekk ci loolu seereel leen ko ba ñu xam ba ñu ko moom ci boppam xam ñu wéetal ko ca xam ne loolu ak jagleel ma mu nekk ci loolu woon gannaaw lépp yaakaar naa ne def naa am lu ma fan weeraat yu mu génnul Touba. te nekku ci lenn lu dul euh, alxuraan euh, ja ak xamle ko ak taxawu ko loolu rek euh, kon ku ne loolu kilifa mi yaakub ci jijéem moo ñoo ko jëkk a seere loolu jëkk ko nangul bi ñëpp xam ko xam ko ci loola nangul ko ca bàyyi ko ca ba mu wàcc liggéey kon nag bu sëñ Fallu jógee ci nii mu jóge jëm ci wàll googu loolu wax dëgg yàlla euh, du nu jaaxal sax ndax loolu lu war a mën a am la lu war a mën a nekk la waaye teewul nongu ci jagle ak cant cant gu di ko ñaanal itam doon sàmm ko aar ko may ko rek fan gudd waan na kàttan gu àggale yéeneem ci taxawaay boobu. jamono jii ñu nekk ak ni àddina yi doxee réer gi bari xam-xam tumuraanke lool ci gox yu bari ak mbaax jafe lool. ku gis itam yàqu-yàqu yi nga xam ne tàbbi na tey yàq jikko yi ku xool loolu nag loolu lépp nga di ko gis dellu itam gis liggéey bii nga xam ne sëriñ fàllu Mbacké Souhaïbou bu sumb na ko ci fii ci Ndakaaru ci goxi taax yi ngir rek defar ci ndaw ñi def ci ñoom xam-xam teg leen ci yoon ci yoonu njub xamal leen ak mbaax defar leen ku gis jëf ji lu àddina jaxasoo jaxasoo sa xel dana dal sa xol sedd sa yaakaar dër jàng nag dafa am solo ndax boo xëy kenn da nga jàng ñu ñu tere la waroo lekk riba waroo def lu bon da nga war a jàng ba téewaale ci métier moo xam ne dëgg ci sutur sëñ sëriñ sëñ Fall nag def ci lu rëy rëy loo xam ne sagu waa kër sëñ Suwaay bu la sagu waa kër sëñ Tuubaa yëpp la ànd nañ ci di ci liggéey war na léegi ñetti at kon nag bu fekkee ni toll nañ mi di ko fekkee alhamdulilah rabbil alamin école ba nag dafa nekk école boo xam ne mandargaw na lool ndax lépp lu xam-xamu diine ma nga ca bu ñu ko jox li jël def ko ci loolu ay ay xale yu bare bare ay junni xale nañ faa mën a jàng place xam-xam nga fa ba ci place informatique wax dëgg yàlla moom moo ci def mbiram lépp kon nag lii réy la lool bu fekkee ne dañu fi ñëw teew ci ñaari fànn euh, ci mbiru éducation ak bokk ci kër gi ci turu président de la république premier ministre sax dina ñëw léegi wax ko ak euh, ni mu ko war a gën a waxee waaye lii dafa nekk seede boo xam ne mënul ñàkk man nag dama sëñ sëñ Fallou daf ma ci boole ñetti at ngi nii lii maa ngi moom ñu ngi ciy liggéey mu boole ma ci waaye xam naa ne la ci ëppoon loxoom sori woon na ci ba pare. bismillahi rahmani rahim. bokk na ci li nga xam ne moom la sëriñ bi waajal ci bisub ubbi gi muy tegu xeer wu njëkk wi ngir jàkk ji nga xam ne. dees na ko tabax ci biir daara ji jàkka nag ku ne xam na ne fu sëriñ Tuubaa sa sanc moom la cay jiital ngir fonk gi mu fonk waxtu juróom fonk gi mu ko fonk jëf na ko béral na ko feeñal na ko ci lu ne ni mu ko bindee wal fii fiihi jamaatan tuqiim assalawaatul xamsa da'ban yaa hakiim bis bi nag sëriñ Moustapha Bousso ànd na ak sëriñ Mouhamadou Mamoun Bousso ci daara ji ngir natt jàkk ji ak itam dàkk xibla gi loolu nag mu di liggéey boo xam ne ci xam-xam yu ràññeeku te tumuraanke lool ci la tegu ci déplacement bi ngeen def jóge Touba ba fii ngir tegal ko xeeru jumaa ji muy def ci barab bii li taxit mu taamu leen ci yow sëriñ Moustapha ku ne xam na ne sëriñ Saliou fu mu tabax juma ba jàkk yow lay taamu nga teg xeer bi ndax sa baay sëriñ baaxeer bu su mosañ bàkke bu su yàlla mayoon na ko xam-xam ci fànn xam-xam yëpp waaye it ku géeju woon la ci wàllu ilmu nujum sëriñ bàkke bu su tàggat na ko ca lool ca jamono ya ndaw daa ànd ak moom di natt jumaay Tuubaa ba tax na googu wet sëriñ bi féetale ko sëriñ Maamun Bousso itam sëriñ Modou Bousso mi nga xam ne mooy taawu sëñ Mbàkke Bousso di waajuram moom mii mu nekk ilimaani jumaay tuuba di jiite it ayit sëriñ Saaliw it doyloo ko lool ci yu bëree bëri kon li tax sëriñ Fallu taamu leen ngir ñu xiblaal barab bi sëriñ bi door a egg si te xeer wi moo di barkeelu ci kàddu Serigne Touba yam waxoon seen maam dafa wax ne ba mu nekkee Gabon fab ñeenti bant samp ko def ko jàkk tubaab yi daaneel ko sempi bant ya sànni fas saasa ko sun borom won jumaay njéeréem ji ak jumaay Touba ji ko nar a tabaxal mu won ko na muy mel ba mu gis ko bi mu egsee te jamono jooju bokkut ak jamono ji booba Touba ndox amu fa àll bu lëndëm këris la waaye téewul muy waxtaane Touba ni muy mel ëllëg di waxtaane it sama jumaa ji ma fi sama borom may ni muy mel sëriñ Bousso bi itam sëriñ Touba waxoon na ko ca ba muy door a sañ ci Touba ne ko sun borom dana ma tabaxal jumaa ju fii ci Touba gii jumaa joojee nag bu noppee yow sëñ bu bi ak borom saam yéen a ma ciy jiiteel loolu it waxi wàllu yu la neexu a xam waaye li koy firndeel ba suñ jëm jën ba ba fii ñuy wax ak yéen ku ci mës a jiit rek sëñ bu bee jur sa baay wala sa maam ku ci mës a jiit rek sëñ borom saam moo jur sa ndey wala mu jur sa maam kon loolu mooy firndeel waxam jooju ba ca toppit bi mu nekkee njaareem ba war a ba santaane jumaay Tuubaa ñu war koo liggéey dafa woo sëriñ Mbàkke ba mu ñëw mu ne ko Mbàkke yow. jumaa ji may santaane li ci sëb cër di ci sas saw sas mooy xiblaal ga waxtu boo ko xiblaalee ba mu jublu penku rek na la wóor na yow wàcc nga ak jiiteel ma ko ak jiiteel ma ko joojee nag moo indi yiw mi ngi jiite ajjuma bisub ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru janvier atum 2009 ci suba si rek fekk na gan ñi tàmbale yegg si tàmbale ko ci waa kër Serigne Touba yi nga xam ne wane nañ seenu mbégte ci bis bi ak itam ci liggéey bi nga xam ne sëriñ fàllu Fallou Mbacké bu moo ko woote ñëpp ànd ko moom. wàllu dal yi nag yaatu woon na lool te matale te rafet tam lool ci ni nga xam ne noonu lañ ko taxawoo ràññe nañu. ñetti dal bi ci jiitu di kër sëriñ fàllu Mbacke Souhaïbou mi nga xam ne mi ngi nekkoon yoof ak kër Cheikh Mansour juuf mi nga xam ne moom itam sëriñ bi sant na ko lool ngir pësteef bi mu def mook mbooloom ngir ganale gan ñi ak teral leen ràññewoon nañu itam ñetteelu dal muy kër sëriñ Seck moom itam kenn ku ne xam ne kenn la ci sëriñ bi sëriñ bi sant na ko lool ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne wane na ko ngir jëmmi sëriñ Touba nan la dal di tëddee woon. kër sëriñ Fallou Mbacke ibnu sëriñ Chouaïbou Mbacke ci yoof la woon kilifa yu bari teew fa ñëpp nag wone rek seen mbégte ak itam yitte ji ñu def ngir xam ne bis bi bisub sëriñ tubaala la bisub lislaam gépp la loola waral ñu teew fi. ràññee nañ ci sëriñ Mountakha mbàkke ibnu sëriñ Bassirou Mbacke. sëriñ Amsatu Mbàkke ibnu sëriñ Abdul Ahad Mbàkke sëriñ Sidi Abdul Xaadir Mbàkke sëriñ Moussa Mbàkke ibnu sëriñ Murtada Mbàkke euh, délégation wu sëriñ Abdul Fata bu sëriñ Cheikh Mbàkke délégation sëriñ Moustapha Ndiagne xalif sëriñ ak itam délégation sëriñ Moussa Mbàkke Nawel di xalif euh, sëriñ Moustapha Bassirou Mbàkke ak délégation sëriñ Aziz Abo te rakkam jiite ko sëriñ sëriñ Cheikhouna délégation sëriñ Fallou Fall bu sëriñ Modou Aminta Fall sëriñ Mourtada Mbacke ibnu sëriñ Saliou Mbacke sëriñ Chouaïbou Jenn ibnu sëriñ Baara Jenn sëriñ Moustapha Abdoul Khadir Mbacke sëriñ Cheikhouna Mbacke Abo teewal fa itam sëriñ Aziz Abo ràññewoon nañ fa itam teewaayu soxna Waalo Mbacke bintu Serigne Saliou Mbacke soxna Kiné Mbacke bintu sëriñ Abdoul Ahad Mbacke soxna Aysatu Mbacke Fallou soxna Ummi Mbacke Murtada soxna Maam Xari Mbacke Abdoul Ahad soxna Muminatu Mbacke Abdoulaye borom dër bi soxna May Abo ak i rakkam ak soxna Jaxate bu soxna Mbène Ngaabu naka noonu itam teewaayu soxna May bu sëriñ Abdullahi boroom dër bi ak soxna Awa Gajaga ñoom itamit ñëpp sëriñ bi rafetlu na seen taxawaayu sant leen bu wér a wér bokk na ci daal itam niñ ko waxe woon kër Cheikh Mansour Diouf foofu nag eh, eh, ràññee nañu ne waa kër sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke gépp foofa lañu dal li ko dale ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke mi nga xam ne mooy xalif bu sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke ak sëriñ Abdul Ahad Mbacke moom sëriñ Chouaïbou ak sëriñ Fallou Imaam bu sëriñ Abdul Xaadir Mbacke ak sëriñ Abibu ibnu sëriñ fàllu Mbacke ak sëriñ Basiru Bousso ak sëriñ Mamoun buso Imaam ak sëriñ Moustapha buso baaxe ci barab dal yi nga xam ne itam waxoon nañu ko sànq euh, kër sëriñ sekk mi nga xam ne mi ngi nekk jëppal ñu ràññee ci sëriñ Fallou Mbacke ibnu sëriñ Ibra Mbacke ak sëriñ Mahmadan bu sëriñ Abdul Ahad Mbacke mi nga xam ne moom moo fa teewal sëriñ Sidi Mbacke sëriñ Xadim ibnu sëriñ Cheikh Saliou Mbacke ak sëriñ Murtada bu sëriñ Saliou Mbacke taxawaay bu rafet boobu itam sëriñ bi rafetlu na ko sant ci sëriñ Seck ak njabootam. sëriñ Fallou nag sant na mbokk taalibe yépp sant na itam sëriñ Mass Samb ca Louga ngir seenu taxawaay naka noonu itam maître Madické Niang xam gi mu xam ne bis bi du ko fekk ci dëkk bi loolu moo waral ngir wane ak fonkeelam ak bokk gim ci bokk moo tax mu jiitu ñëw fa itam teew fa jëf ci wane it safo gi mu safoo liggéey bi ak itam sant gi mu ci sant ci taxawaay boobu loolu it sëriñ bi sant na ko ci bu wér a wér. bis bii bis bi nag bég nañ ci te jëmaguñ fa tax ñu woote sax waaye noo ngi sant sëriñ Fadilu dajale gi moom fi dajale ngir yàlla ak sëñ Tuubaa ak lislaam fañ jëm nag àggaguñ fa waaye dégg naa ko yàgg naa dégg na mel. loolu li dara taxul ma def këru lislaam ak sëñ Touba maamam eh, lim lim lim fa def ak lim nisar def ko tey tegtal la ci mu ngi ci tànki maamam ak tànki baayam eh, kon nag ñëpp bég nañ ci. waaw ah, yëg-yëg yi nag moom li yëg la ñëpp yëg rek moo yëg na sëñ Touba ngi jàll jëm kaw jëm kaw sëñ Touba nag. fi nga koy gisee mooy euh, lislaam day gën a jëm ko rek ndax la mu waxoon subhaanahu wa taala ñaan ko yàlla may ko loolu sëñ Fall yi mi ngi koy dundal bis boobu mm, te mu te mu waxoon ne kan si kitaab wal xadiis wa adab laa jam fiddati wala jam zahab euh, trésor mooy euh, alquran ak hadis ak littérature loolu bu waxee kon sëñ Fall di ko taxaw fii di ko def ko loolu yéeg nañ ci ñu ne sëñ to mbiram dal gën a mukk ci àdduna waxoon ne waxoon ne wahab lanaa suriyatan taduumu alaa amali saalihi yaa xadim suriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabi Mustafa tajtahir loolu kon mel na moom taxaw na ca te ñu ko ñaax ñu ko ci gën a ñaax di ñaax suñu bopp ñu itam di ñaax taalibe yëpp ñu jàppale ko ci ak ñun ñu bokk yëpp jàppale ko ci ñun ñëpp ay taalibe lañ ndax suñu tuwaay li ci am njëriñ mooy ay taalibe ndax li mu woote woon woote wut ak nguur féetu jihaad waaye la doon la mu jàppoon mooy lislaam la jàpp ba yàlla jox ko li mu ko defal kon nag képp ko xam bëgg nga bëgg sëñ Tuubaa fay sa ajo nekk ji da sëñ Tuubaa bëggoon rek koo def nga sama borom daan defal ne bëgg. ngi sant sëriñ Fàllu mii ah ndax daje bi ñu daje tey yàlla ak moom la te ñun waa kër sëriñ Tuubaa lépp lu ñuy tax a dajaloo di waxtaan di dundal yoon wi loola képp ku ko def rek ñun dañ laa amel njukkal lu wér wér ñun nag dañu fee ñëw. ci suñu turu kilifa sëriñ Ndaam Abdourahmane Mbacké ah, mi nga xam ni jugoon na bay ñëw yàlla def teq-teq waaye bis bi dafay bis boo xam ni képp ku bokk sëriñ Touba rekk boo sañoon tey teg fi tànk képp kuñ fi gisul rek danga am ngànt ah ndax mbégte miñ ci bég yàlla rek moom moo ko xam ndax sëriñ Fallou dafa dekkal li sëriñ bi gënoon na maanaam fonk ci doxin muy xam-xam ah, ndax yoonu murit ku ci génne xam-xam rek daanaka dindi nga lépp ah moom nag euh, waajuram sëñ soin bu dafa mel ni sëriñ bi dafa bokkoon ci lim ko dénk muy ëttu xam-xam yi ndax waa kër sëriñ Tuubaa yëpp jaar nañ ci moom loolu ku ne xam na ko ah ñoom ñiitam itam bi leen fi yàlla bàyyee ci seen gannaaw kilifa sëriñ Cheikh Say ñoom it dañoo topp woowu yoon Eh, di dundal waxtu wu ne daara yi di dundal waxtu wu ne xam-xam waaw ah, loolu moo tax ñun ñëpp eh, lu mel nii dafa mel ni kenn ku ne yaa waroon a jug di ko dox kon bu ko sëriñ bi doxalee doxal ko it fii ci dëkk boo xam ni ku ne defoon na ni ku fi dikk loo am rek ngay wut moom mu ñëw saxal fi xam-xam loolu dafa mel ni mbégte la moo xam ni dafa dàggiwaat ñépp soññaat ñépp te ñun lépp lépp lu ñu def lu dul lii mu def rek dañoo dolliwaat laneen waaye liñ ñu war a def mooy lii toog jàngale toog jàng ne ci ëtt xam-xam ni bis bi toll ak gan gi nga xam ne mooy xalifa général kulu murit muy Cheikh Mouhamadul Amine Bara Mbacké tolluwaay boobu moo waral lépp rekk tënku ci ak cant sant ci njàngum alxuraan ak xasaayit waaye itam sant ci bernde bernde yu yaatu te matale lu ëpp tonu ceeb fukki nag ak juróom-ñaar lim ci ay xar yu baree bari ak i ginaar ak lépp lu yelloog rekk bernde bu rafet te matale ci gan gu màgg Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké bi mu ñëw nag fii ci ndakaaru ngir ubbi daara ji ngir teg xeeru jumaa ji itam ànd na it ak mbooleem njaboot gi mu njabootuk sëriñ Fallou yépp sëriñ Abdul Fattah sëriñ Sam Mbacké Fadilou sëriñ Cheikh Ibra Mbacké Fadilou sëriñ Mamor Mbacké Fadilou sëriñ Murtada Mbacké Fadilou sëriñ Habibu Mbacké Fadilou ak Serigne Cheikh Oumy Mbacké dafa daal di jubal nag ci plaque bi nga xam ne moo màndargaal daara ji ak it di màndargaal ne ñi ngi koy ubbi ci bis sàngam muy le 28 janvier 2009 ci teewaay ak njiital ak kilifteef ak ndimbal ak ndigalal ki nga xam ne moo fi teewal tey Serigne Touba di Cheikh Mouhamadul Amine Bara Mbacké loolu nag sëriñ bi sof na ci li nga xam ne moom mooy tegug xeer wu njëkk wi nga xam ne moom lañu ñu teg ngir jàkk ji nga xam ne dafa bokk ci liggéey bi te sëriñ Fallou Mbacké di ko def fii ci biir ji ci noonu la sëriñ bi defee ñaan léemu barab bi def fi ngërëm dolli fi barke ak i xéewal doora nag yegg ci mbooloo mi nga xam ne ñëpp a ngi toogoon di ko nekk ngi rek ndimbal li nu xam ne moom la ñëw gi làmboo moom la ñëw gi àndal xam ni bi toll moo waral Cheikh Agibou Soumaré mi nga xam ne moo doonoon premier ministre bu nguurug Sénégal mu teew fa ànd ak président Sénat Pape Diop ñëw rek ngir wane ñoom itam seenu cofeel ci liggéey bi ak ànd giñ ci ànd ak xam gi nu xam ne taxawaayu liggéey bi mooy taxawaay rek bi nga xam ne moo jëmale réew mi kanam ginnaaw ziyaar yi ak nuyoo yi ci teewaayu waa kër sëriñ Touba ci teewaay bu ràññiku bu njabootu Serigne Souhaïbou Mbacké mbooleem ña fa teewoon nag ànd nañu ñaanal a Cheikh Mouhamadul Amine Bara Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ñi ngi rafet lu baax initiative bi nga xam ne sëñ Fallou jël na ko pour war a tabax fii ci Dakar école bu mag bii nga xam ne bi la li mu ci jublu. moo di xeex ak mendicité maanaam ñi nga xam ne bile dañuy yalwaan xeex ak xale yi nga également dañu nekk ay délinquant xeex ak xale yi nga xam ni dañuy def lu bon maanaam di tox ay yàmba ak yeneen xeex également ak déperdition scolaire maanaam xale yi nga xam bi la dañuy jàng te amaguñu fu ñu dugg mu jël leen mais xeex ak également exode rural maanaam ñi nga xam ne bi dañuy jógee ca àll ba di ñëw fii te amuñu fi lu ñu def kon loolu képp koo xam ni ki yaa ngi nekk représentant gouvernement bi mënoo ci dudul rafetlu ko ndax njàngum xale yi ak seen formation état la war kon nag képp koo xam ne ki lay jël nga boobu initiative yaakaar naa ne président de la république ngay dimbali premier ministre ngay dimbali ak gouvernement bi yëpp. ñun nag en tant que gouverneur de la région du ñu mën lu dul kontaan ci loolu ndax bu ñu ko defee ci suñu région ni nga ko waxee mënoon na ko def Touba mënoon na ko def Ndiarème mënoon na ko def Darou Mousty waaye fii nga capital bi fi nga xam ne mooy capital bi nga xam ne problème yooyu yëpp fi la gën a bare mu def ko fi yaakaar naa ni choix bu baax la. la la dara expérimentale de ces enfants la gis nga kii tey jii nii mu ngi def troisième cycle en électromécanique kii il est devenu instructeur au niveau de la daara moo nekk nii parce que sëriñ bi day xool plus tard aussi daf leen di orienté au métier ñi ñëpp dañuy dem à l'école française am na quelques pensionnaires yoo xam ne Coran rek la ñuy def Cheikh Agibou Soumaré xamle na mbégteem ak cantuk njiitu réew mi maître Abdoulaye Wade ci liggéey bi nga xam ne ci ndaw ñi la jëm ngir rekk ak njub ak defaru ak xam ak liggéey te loolu du dolli réew mi nga xam ne moom lañu bokk te mënuñu ko seddoo muy senegal ba mu yëgee ñëwam fii la ma ne naa ko ñëw teerul xaritam soppe moo tax ma ñëw fii tey pour teeru ko pour indil ko nuyoo président Abdoulaye Wade ku nekk xam na seen diggante sëriñ bi président mi ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci sa taxawaay ci senegal umpul kenn ci senegal ne saa su ne yaa ngi ñaan pour réew mi jëm kanam di ñaanal président lay Wade pour li mu namm ci senegal yépp mu mun ko eggale sëriñ bi président mi ngi lay gërëm di la sant ci sa taxawaay dañu fi ñëw tey nag ci xew-xew bu rëy muy inauguration bi nga ñëw ci daara moderne bii nga xam ne sëriñ Falilu Suwaybu moo ko fi def li mu def nag lu rëy la ci ñun mais mënul woon nekk neneen parce que sëriñ Suwaybu sëriñ euh, Fallu Suwaybu boo xoolee ne waajuram bu baax bi ci la mu doon yëngatu ci diine boole ceeb turandoom bu baax ba ni mu nekkee woon ba nga xam ne Sénégal yëpp xam nañ ne lu mu mus a wax rek loolu nit ñi dinañ ko jàpp bu baax a baax a baax donc bu jëlee ci ñaar ñooñu rek lii mu def betul kenn moo tax sëriñ bi maa ngi lay gërëm di la sant ci sa taxawaay sa taxawaay ci diine parce sëriñ bi. def na pose première pierre wu jumaa ji nga bëgg a def fii mais ñëw na aussi ci inauguration wu daara moderne bii nga ko fi def donc tey bu fekkee ne sëñ Fallou bu am na xalaatu def lu demee nii nga xam ne gouvernement moo ko war di def ñun ñëpp dañ ko war a jàppale sëñ bi donc ñu ngi lay gërëm di la sant ci sa taxawaay ci dine mais ci sa taxawaay aussi pour que sunuy xale réew mun a am éducation bu baax loolu sénégalais bu nekk war na ci roy. ginnaaw kàddu yu rafet yooyu sëriñ Abdou Samad Mbacke ibnu sëriñ bu Mbacke daal nay jël kàddu nag wax ci turu sëriñ Mouhamadul Amin Baara Mbacke waaye tamit jottali ak cant gu bawoo. ci njabootug sëriñ Souhaïbou yëpp ak cant gu kawe goo xam ne sëriñ Fallou Mbacke wane na ko ci ñëw gi nga xam ne sëriñ Baara ñëw na ko fii ngir ñaanal liggéey bi ngir léemu ko ngir ubbi daara ji ngir teg xeer wi ñu déglu sëriñ abdu Samad Mbacke ibnu sëriñ Souhaïbou Mbacke. sëriñ bi nun mënuñu laa fay sëriñ Cheikh Say dafa wax ne naa la jottali ci kàddu kër sëriñ Souhaïbou gépp ak njabootuk sëriñ soxay bu gépp sëriñ fadlu mii ak i rakkam ak i magam sa jéego yi nga jóge Touba ñëw ba fii woyefut ci ñoom rey na lool ci ñoom ndax amuñu lu gën a rëy sëriñ Touba te yaay sëriñ tubaa kon day mel ne sëriñ Touba ñëw na ci ndakaaru waaye it ñëwin fi ñëwin wu dal xel mooy ubbi fi daara yi alquran teg fi jàkkee teg fi xeeru juma kon nag njabootu sëriñ son bu gépp amal nañ la ak cant sëriñ seex nee na mi ngi lay seereel ne yëg nga leen jàpp nga leen te bëgg nga leen waaye nag liñ lay faye mooy jox la seen bopp te duñ ca desal dara tey ñaanit nga yàgg fi lool ci daraje sëriñ Touba ba mboolem li sa mbaay sa sa baay yépp ne sa ci liggéey sëriñ Touba mu mate ci sa loxo te loolu it ñaani sëriñ Touba ko jiitu waxab lana dhurriyatan tudiimu al amala saaliha yaa qadiimu sëriñ Fallu mii nag sab cëre sab cëre ci tur wi waaye sab cëre ci bokk gi ndax sëriñ Fadilu ak sëriñ Sohaybu ku ne xam na seen diggante jërul ma di ko leeral nit ñi waaye sëriñ Mbàkke kenn mi jur na yi sëñ Fallu ak soxna Awa Buso ñoo bokk sëñ Buso bi kon googu wet ab sangam nga waaye lii nga ko defal moo gën jox ko mbubb kon nag sëriñ bi mënuñu laa fay yal na nu yàlla fayal ci dara daraje sëriñ Tuubaa sëriñ Fallu nag li tax mu taxawal daara jii dafa xam ne Serigne Touba dafa jóg ngir xeetali jaam ñi wax ne yàlla moo ma indi ma nekk mujaddid yonent bu xasee yonent bi saa salaam gannaawam ku ne xam na ni ab yonent du amati waaye mujaddid du fi jóg ci téeméeri at yu ne Serigne Touba wax ne lil Mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu maa taxaw taxawaayu yonent bi ci zaahir ak ci baatin di yeesal sunnaam si bind it wax ne al xam-xam ci boppam ak jëfe xam-xam mooy ñaari tànk yi muy doxe ci lay liggéeyee mooy méthode am mu ne yaa ayuha sibyaanu laa tastaxilu an ilhuda wa bil ulumi istaxilu fastaxilu bilxifdi wattilaawa wajtanibu majalis assaqaawa yéen gone yi tuuti yi bu leen def dara dara muy seen ite lu ak jub bu leen def dara muy seen ité lu dul sàkku xam-xam ak wattu alquran ak di ko jàng waxtu bu ne ndax wa man yaxsu an dicri rahmani nuqayid lahu cheytaanan fa huwa lahu qarin te yewin nga jàpp kër gi sa loxo du fi jóg sa jëmm du fi jóg ñu yëg ko ci zahir ak ci batin war nañ koo seere fii te di la xamal ne itam xenc mboorum sëñ Sohaybu moo muy moo tax mu ñëw ci ndakaaru gi xam ne fii la gën a lëndëmee fi yi jëmut fenn gën a bare seytaane di leen fëkk jëme ci wàllam mu fas yéene njëkkalante ak seytaane jëme leen ci jub moo tax mu laaj pàkk bii defar ko def ko daara daara sëñ Tuubaa ju xamle ni ko sëriñ Tuubaa bëggee woon ngir royee ko waajuram woowee kon nag war naa góorgóorlu ci la sëñ Sohaybu bu doon def bu mënul nam ko doon defee it mu def ci kem kàttanam am na tawféex nag bi mu taseeg xalifab sëriñ Tuubaa bu mel ne yow woyof toy yëg ñëpp bëgg ñëpp lu mu am bokk ak ñëpp moo waral sa jéego yi ne ëpp nga nu Cheikh Ibra def daa wax Serigne Touba ne ko ëpp nga Serigne te matuñu lay taalibe ëpp nga nub Serigne te boo doon ab Serigne ñun matuñu lay taalibe waaye yow itam sëriñ bi sa baax gii nga xam ne da koo matale ci kër yi kenn ku ne yëg nga ko kenn ku ne laaj nga ko xalaat kenn ku ne delloo nga ko lam moom ci yow da ngaa waxoon ni lii ma doon ku ne mën na koo doon ci yéen waaye loolu waxoo ko danga koo jëfe kon nag yàlla na nga fi yàgg tubér ma fàttali nit ñi nag tuuti ci sëñ fallu mii ak cër cër cër bi mu am ci sëñ fallu loo xam ne moo waral sa dikk gii tey te ñu bari xamuñu ko sëñ fallu bi mu gënee àdduna yàlla daf ko binde mu xiiban lool ba jàpp ñu ne dana gudd fan sëriñ soxna bu woo soxna Aminta Kanni bu sa yaay sëñ Abdou Xaadir di sunu maam ne ko fallu mii de dama ci amoon yaakaar lool ba tuddi ko ko waaye fi mu ne nii di amatuma ci yaakaar ma bëgg nga yóbbu ko ca waxal maa moom mu ne ko na ko ñaanal soxna mi te ne ko ah wallaay da nga ko yéene sa cër bi waaye kii du nit du fi yàgg mu ne ko waaye yóbbu ko ca moom rek bi mu diggee nuyu sëñ fallu ba nopp wax ko ko ne ko sëñ bu dee nee naa fi andi sa fallu la ko waaye moom dalaa yéene cër bi rek waaye xam ne ni kii du dund du fallu téye ko ne ko ndey amit yaay nit bay xam ko fi yàgg ko fi du yàgg da yàgg. te day liggéey dana liggéey maa la ko wax dana dund te dana liggéey dana barkeel sëñ Fall nag lu mu wax ñu teg ci bët waaye waxam joojee bu doon bu leetara yaa ko tamp ne tey jii waxam jo loolu yëpp kàddoom googee lu koy findeel mooy dana dem ba defar daara moderne di xettali gone yi di leen jubal ca ndakaaru sama sama sama ki njëkk a doon xalifa sëñ Tuubaa cib sët doon sama doom njëkki inauguré ko te xamoo woon loolu ci saahir yaa ko def tey jii ngir tamp ne jëfi sëñ Fallu jooje ko eh, te sa baay nag mooy sëñ Tuubaa moo taxaw fii tëgg dëndam te wa maa yantiqu anil hawaa du wax lu dul dëgg ci moom mënu ko sax moo wax tëgg dëndam ne maay sëñ Tuubaa daal ne bu ngeen ma noppee gis gis doomi sëriñ Tuubaa waaye maay sëñ Tuubaa te loolu li koy firndeel ca Tuubaa ju jëkk ja sëriñ bi dane sëñ Mbàkke bu sa danaa ànd ak yow aji Makka buñ jëmee ba ca barabu yonent bi danaa fa tari xasida gu ñuy wax qad taaba qalbi lamma allahu sallama nii min al ayda wa bi xatti dambi akrama nii bañ jëmee ba madinatul munawara bañ jëmee ba madinatul munawara ñu réeroo ñoom ñaar ci zahir sëñ Fallou gisatu sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke gisatu ko yàlla dogal sëñ Mbàkke mës a dégg loolu mës sëñ mës a dégg loolu xis boobu mu dem ba ca barabu yonent bi di yëkkati xataa ba ca kaw sëñ bakki di ba fekk ko fa nag ko sëñ Tuubaa waxee woon ne ko bu ñu àndee danaa jàng xasida xataaba ci barab bi sëñ Mbàkke yuuxu xam ngeen ne ku yuuxuloo sëñ ku yuuxuloo sëñ Mbàkke Buso di ko daaneel doo waliyu ndaw kon nag nun suñ xel dal na bi nu sëñ Fallu bàyyi lee wuutaat wutal nii nee naa yow yaay taalibeb sëñ Fallu yaay soppeb sëñ Fallu yaay doomi sëñ Fallu yaay sëñ Fallu yaay sëñ Tuubaa kon nag nun amatul lu nuy wax sëriñ Fallu rek bëgg na gàttal jataay bi waaye mu sant yi boppam yépp li ko tàmbalee ci magi boppam ji nga xam ne bu ne woon du am du am ak rakam sëñ Abdul Ahad ak rakam yépp sëñ Ahmadul Muxtaar sëñ Fallum sëñ da rakki sëñ daam atta yebal na ko ak mboolem kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo bokk turux suufi yi Sénégal yépp ñu fi teew ñooñu ñëpp kenn desut kenn ku ne wan nga ko ne diine ji benn na innamal mu'minuuna ixwa noo bokk ndigal comme nag jataay bi dafa gàtt te waxtu bi dafa jot mu deles jotal ak cant ci premier ministre mi nga xam ne man mënumaa sori ci moom ndax day sama doom yi ndey di sama xarit waaye nag dafay teewal président de la république jëmmal ko fi waaye ma dina wax ne nit ku dëggu la nit ku bëgg sëñ tubaa la nit ku fonk liggéeyam la te loolu laa xam ci moom sëriñ Muntaxa moom bu ma nee sëñ Alaaji Baara tudd naa ko ndax daf ko yóbbaale li sëñ li sëñ Tuubaa waxoon ci Ceerno ne mooy mooy sama mbaggu mbaggum nday joor jërul sax may tudd Alaaji di tudd sëñ Muntaxa te sëñ Muntaxa mooy taawu kër sëñ Sohibu waaye bu ma nee Alaaji rek tuddaale naa ko ndax mooy mbaggum nday joor mënta dem ba ko ñoom ñooy ànd ci lépp sëñ Abdu Xaadir dafa waxoon sëñ laa Lahat ne ko maa ngi yow goppab ëllëg lañ mënuñoo an mënu bu ñu àndoon ba yeef gi du rafet waaye noonu la Allaaji dox ak moom lépp la ko bàyyee mooy jëwriñam sëriñ bi donga yaa ngi sëriñ Fallu nee ne lii mu sémbu bu doon moom donga du àgg lu fi ne donga yee kenn rox ko ci ñu ngi lay ñaan nag julli gii nga ñuy bëgg a jiite nga fasal nu ci yonente bi sansam dafa wax ne man xal salla xalfa maxfóorin wufira lahu ku julli ci gannaaw kuñ jéggal ñu jéggal la waaye sa baay bu baax ba dafa ñëwoon Taïf siyaare Cheikh Moustapha ànd ak lenn ci doomi Serigne Touba yi ci ëpp ngan gu neex la woon bañ demee bay tàggoo sëñ Muudu ne ko jiiteel sëñ Fallu ne ko yaay sama doomi Serigne te yaay sama Serigne jiiteel sëñ Muudu ne ko waaye yaay sëñ tubaa ndax fii bi ma fi sañ ceeg léegi dama ne woon sëñ Touba dana ma fekk te yaa ma fi njëkk fekk yaay sëñ Touba sëñ Fallu ne ko waaye jiiteel mu ne ko déedéet defal li ma la wax rek ndigal laa la jox sëñ Fallu ne ko danaa ko def waaye dafa am lu ma lay ci sartal. sartal ma ci bu julli gii may julli ñi ma jiite ñëpp nañ leen jëggal ñooñee kuñ jiiteeti nañ la jëggal ñooñee kuñ jiiteeti nañ la jëggal sëñ Abdou Khadir daf daa wax ne man de ci julli googu laa bokkoon moo tax ku ma jiite ñu jëggal kon nag sëñ Touba moom it du fi jóg mukk yaa ngi yaay sëñ Fallu yaay sañ tubaa ku ànd ci julli gi nañ ko jëggal ku ci ku mu jiite waat nañ ko jëggal man nga ko sañ nga ko defal ko ci daraje sëñ Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu بخير جدني وردني كل ذي حسد منازعا بسنا نشرك ما أنت المجيب الذي نجيت من غرق ci mbégte mu rëy cant gu kawe ak feddali ay pëstéef ak i ngërëm ci loolu lañu gunge sëriñ bi xel yépp dal yaakaar yi gën a dër ci ne lii fi sëriñ Fallou Mbacke yi bu def dana am nu kawe njort yi te it fu ñu ko yaakaaree rek dana ko weesu. ni nga war a njukkale sëñ Tuubaa aw ci salaatum saxiim aw jub nekk benn mu ñu ko defee lépp dana baax ndax wax na ne nit ki bu fekkee maa ngi koy wax nettali bii defe naa ne nit ki bu fekkee naa bëgg sëñ bi dëkk euh, da wut su sa gees su saf sàpp def ko muy sa ndey nga wut nangoo sonn def ko muy sa baay wut gàtt mébét def ko muy def ko muy seen yaay def jaamu yàlla muy si wéttal boo ko gàtt dëkk boo ko sañcee du gent loolu waxi sëñ Tuubaa suñu fàllu mutu moom seer ci moom moom suñu fàllu yi moom Cheikh Moussa ndax sama suñu daara la woon man mii jaar naa ci daara am aslëf am na ay benn benn téere yu ma xamal yooyu sant naa ci yàlla baax a baax. man li ma sant tey mooy maanaam sëñ Fallou lim ñu jàngal mooy ay yar ak i teggin ba nga am li nga xam ne moom nga bëgg mooy maanaam euh, teggu ci yoonu njub waaw teggu ci yoonu mbub te bañ ci teggooku ba faw te mooy li tey mu def. di ñu wan na tamit murit moomul jóg rek ne damay def mbir tey mu sotti tey da koy jël gëm ko nekk ci ba saa su nekk ku ku ba ñëpp fekk la ci ku dem nga dem ku demul nga dem soo gëstoo rek gis mbooloo. dafa mel ni Cheikh Mouhamadul Fadel Mbacke mu Serigne Chouaïbou Mbacke bu taxawalee lu mel nii fas yéene fee taxawu xale yi nga xamante ne nii dañ leen a abandonné wala ñu nekk ay situation yu difficile. nga xamante ne programme ONG yi nga xamante ne nii moo nekkoon ci kër Serigne tubaa yëpp nekk ci lislaam seen yitte yëpp moo doon loolu moom mu fas yéene bay waar woowu féetewoo ko te tàmbali bi mu ko tàmbali nekk tàmbali boo xamante ni bu rafet la xam naa lii sax day doog a jóg waaye moom yàgg na ci lu mel nii kilifa goo xamante ne nii la mi ngi xalaat bu baax ci loo xamante ne nii moom la Serigne tubaa digle woon bàyyi woon ko fi muy ay ndigal yoo xamante ne dañ cee war a taxawu xale yi xale moom xam nañ ni ku ko taxawu taxawu nga famille nga diine. comme ni nga ko waxee léegi ONG bi nga xamante ne moom la ñu yore mu ONG Rida nekk ñoo ngi ci biir te incha allahu danañ ci jàpp jàpp boo xamante ne nii ngir yàlla ak jëm sëñ Touba rek tax ñu def ko. daara ji nga xam ne nag moom la sëriñ Mouhamadul Amine Baara Mbacke xalif général des Mourides doon ubbi. te ñu tuddee ko daaray sëriñ Souhaïbou Mbacké ubbi na ay buntam ci jullit ñëpp programme yi muy doxe waajal na ñëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ci bépp xeeti xam-xamu diine nag njàng mi itam tàmbali na ca ba ñu ko ubbee tànn nañu itam ñu seen xam-xam matale te rafet ñu di fa jàngale ci sàtt yi nga xam ne moom lañu tàmm ku jàngale tey yare mu ame ko te doon melokaanam loolu moo waral sax ci ginnaaw ba ñu jullee timis ci bisu ubbi gi ñu jagleel ay waxtaan tuddee ko sëriñ Saalifu Mbàkke ngir barkeelu ci moom ak itam sàkkoo xam ana nan la jàngalekat war mel kon xam-xam bi xam nañ ko ci moom ñaareel ba lewet daa bokk ci liñ soxla ci jikko yi kuy tarbiya lewet ndax yonente bi la yàlla waxal ni ko walaw kunta faddan xalidal qalbi lan faddoo min hawlik ñu ko am na naqari deret goo xam ne bu nekkoon ci yow ñu la wër dañuy dem bàyyi la fi kenn du mën te jëfante ak yow waaye lewet googu ñu xam ko ci Saliou ak lan tey sëñ sëriñ Saliou ku tey la woon te bëgg ak tey bu la yónnee nga bëgg ni bëreet sax naan la defal ndànk mu jële ko ci yarub sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa dañoo wax ni dafa am mag loolu sëñ bi ko daan nettali sax mag mag dafa yónnee ndaw ni ko demal wool ma sa baay diw mu ne bërit sëlëx nit ñi suuf mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko boo nekkatee ciw nit bay jóg dangay ngay góof say yére ndànk ba sori leen waaye doo jóg rek sëlëx nit ñi suuf mu ne ko tuub naa ko mbàkke daal dem dafa am beneen bu bu mënta ñàkk ci kuy tarbiyaa muy yërmande yërmande nit ñi yërmande ngay jëkk am ci ñoom door leen a mën a wommat jëme leen ci yàlla boo amul ci ñoom yërmande sëriñ bi mas naa ko ni man de dama day damay am yërmande ci yow lool ci jataay yi ak ak nit ñi ni ñu lay mu ni ma mu ne may de dama leen di yërëm ba sama loxo ngi bëgg a tóor waaw moom saa bu demee ba ni ba ni ñëpp génn dem na ba mënatu ko dékku waaye saa bu ko mënatu dékku ba wax ko ba nit ñi di comaaytu ci kes gi da leen di yërëm ba ranko ngi bëgg a tóor nen yërmande jooju la am ci ñoom xale yi ñu ko daan jox mu di leen yóbbu ci àll ba xam na ne loolu mooy yoon wañu leen war a yare waaye daana dem di leen xool ñu wër ko ba mujj na ko njiitul mu fab kaala gi teg ko ci bëri fu yërmande di àgg rek yërmande bi àggoon na fa waaye dafa am beneen tomb boo xam ne kum nekkul ci yow doo mën a tarbiya ndax tarbiya nit ki mën naa am xam-xam bi mën naa baax moom ci jëmmi boppam te du tax mu mën a defar kenn mooy boo ittewoowut nit ñi fopp nga ittewoo leen sëriñ bi dafa ittewoo nit ñi ba àgg dama koy nettali damay wax ni sëñ bi boo gone gi ñu ko jox daf koy jëkk xamal boppam boppam ba ma xamal ko mooy kan moom xale bi door laa jàngal boppam moom jëm boppam door laa jàngal yàlla ni mu lay xamale sa bopp mooy dana toog mbooloo wër ko di ziar mbooloo ma ku yor lu ne nekk ca kii mën naa yor ay million war koo jox kii yor ay bagage war koo joxe ñee yor ay ak jur war koo jox waaye saa bu ñu ne sëñ bi kii xale bu gan la bu ñuy jëbbale day daal di dagg li mu doon def lépp ba recevoir xale bi gan boobu nag damay wax ni loolu kon dafa jëkk xamal nit ki boppam xamal ko mooy kan ba mu xam wëlëram ba noppi bu bu ko bu ko bu jëlee xale boobu yi ba siyaar ba jeex ba mu dugg ci biir la muy jëkk a lijjanti mooy ana gone gan yi ñu andi woon gone gan yi lu mu sonn sonn dana leen laaj ñu bëtt ñu jàll fekk ko ci biir bu lekk jotee gone gan yi lay jëkk laaj bu ndekkee jotee gone gan yi lay jëkk buñ fa amee ab diir ba mu miine leen boppam ba mu yóbbu leen ci daara daara jum leen yóbbu balaa am jàmm dafa dem ci daara jooju xool ba xam nañ toogee nu mu demee kon loolu mënees na cee déggee ittewoo gum ittewoo nit waaye xamal gu muy xamal nit ki boppam door koo xamal jëmmam moom door koo xamal yàlla ginnaaw bu la xamalee sa bopp ba nga xam ni nga toll xam ni nit toll xam ni lu matériel boo gis ak loo gis ci àdduna rek yaa ko ëpp doole mu door laa xamal mooy kan nga xam na koy jàppee mu orienté la ci yàlla lañ lay jëkk a jàngal mooy alxuraan teg na fa jàngalekat bu lay jàng bu war a jàngale xam-xam ci ku ci toll waaye noonu la indee matériel ci ñu jàngal la liggéey ñett yooyu ñooy doomu aadama wa mal mar'u illa snaani xaqlun wa mantiqun fa man faatahu hada wa hada faqad damar bi ñu jullee timis ba noppi itam Serigne Fallou Mbacké Souhaïbou bu amal na fa ay waxtaan yu yaatu jëmale ko ci ñépp nag mbokk yi taalibe yi gan ñi dëkkandoo yi waa nguur gi kenn desul yéen mbooloo mi fi teew jàng alxuraan ak jàngale ko lu waay am moo ko gën danaa ci joxe rekk ñaari àddis ba ci jëkk ku jàng risaala rek jàngoo ko ca bopp ba moo de jàngale alxuraan day fay merum yàlla luy fay merum yàlla nit ku ne war na koo xintiwoo bu la sa waajur meroon wala sa kilifa wala sa sëriñ wala président melal la sa ngay bëgg rey sa bopp waaw bu la yàlla meree nag ana lu koy fay nag lu ko lu ko gën amul ba ca topp yonent bi nga xam ne du waxe bànneexam moo wax ne ki gën ci nit ñi mooy kiy jàng alxuraan te ko jàngale kon jàngalekatu alxuraan war naa sant yàlla yonent bi nee na yaa gën ba ca topp mu dellu waxaat moom yonent bi ne waxuma ku mokkal alxuraan waaye góor-góorlu nga bañ ba muus ci ñaw nga ci fer nga ci ijji bu yowmal xayaamee fañ dajale ñu baax ña yaag ñoom yéenay ànd nu dem nag ci sun yaakaare tey ëllëg te mooy Seyxul Xadim nee na ku bëgg a jege sa boroom na ngay jàng alxuraan te ba ko wàcc fa man araada al xurba min mawlaahu fal yaqra il quraana laa yansaaw dellu waxaat ne waxuma jege sa borom waaye ku am ngërëmul sunu borom ku ko bëgg na nga saxal yow murid bi na nga saxal jàng alxuraan te de ko seetantal jàng juróom fukki isib yoo seetantalul jàng benn isib boo seetantal moo ko gën waaye seetantal mooy lan day delluwaat ci nga jàng nga am xam-xam ndax li ngay setantal da xam lu muy firi waaye bu melee ne ay sinwaa ci yow doo ko setantal liman kasani waraw wani watamani ci jottalik sëriñ Mouhamadul Amine Baara Mbacke moom sëriñ Souhaïbou bu Mbacke mi nga xam ne liggéey bi yépp muy ngan gi ak waajtaay wi ak taxawu bis bi ci loxoom la ko sëriñ fàllu mbàkke tegoon mu jiite ci mbokk yeeg taalibe yi ci kàddoom kon ci la sëriñ bi jotalee ak cantam ak mbégteem ci ñi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ci liggéey bi te ñooñu kenn jiituwu ci waa kër sëriñ Touba yi nga xam ne bi ñu yëgee liggéey bii ca la def seen yitte ak seen jot gépp ngir rek jëf ci ci seen taxawaay. ci seen teewaay ba ñi nga xam ne sax am nañ ngànt ba mënuñoo ñëw seen jëf ak seen yéene yebal nañu ko mu teewal leen fi loolu nag cant yooyu lu matele la bu wàcc ci taalibe yi ak ci ñëpp. sant képp koo xam ne jàpp nga ci liggéey bi ku ci feeñ ak ku ci feeñul moo ñi nga xam ne jàppale nañ ma ci liggéey bi ma sëriñ bi santoon it te sëriñ bi yëgu ko maa ngi leen di sant man ci sama sama kàddu bopp di ñaan li nga xam ne moom lañ ci yéene mu doonoon liggéeyal sëriñ Souhaïbou ndax euh, lii yëpp kër sëriñ Souhaïbou rek lañ koy defal lépp luñ ci yàlla fay yàlla nañ ko bokk jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah fii ci ndakaaru la xéwal gi amee woon le 28 janvier 2009 ci Grand Yoff a Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacké ñëwoon fi doon ubbi daara ji nga xam ne Serigne Fallou Mbacké Souhaïbou moo ko tabax tabaxal ko yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul te tuddee ko nag daara sëriñ Soy bu Mbàkke ci bis bi itam ci lañ tegaale xeruk jàkka ji nga xam ne moom la sëriñ bi fas yéene def fii ci bi daara ji ndimbal loolu yërmande jooju xéewal googu moom la waa Ndakaaru gépp ànd bëggee ko sante ko sëriñ Baara Mbàkke tey ñaar mu yàgg fi lool te ànd ak wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. saa soo fobee àlluwo teg ko ci penku ab xale ne ko waxal baa mu ne baa nga ne ko waxal siin mu ne siin nga ne ko waxal miim mu ne miim ñetti araf yooyu mooy yu basmil saa su ko nit defee fa saasa cib jàngukaay sunu boroom jéggal na ko waaye yemul ci jéggal ga jéggal na ay waajuram te bind na ne waat naa ne ma lakk waajuru xale bii wax baa siin miim